jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee Jokkel ñaabu ndaw li ko waral xale bi dafa nekk ci yoon li ne ci kanamam lépp li mu gis da lay ravager day nii rek lay def day fëlax di dem daje kii nga xamante ne nii ndaanaan la ci làmb boo xam dafa xaw a am ay jafe-jafe lu waral jafe-jafe yooyu pourquoi Jokkel mi ñu xamoon Jokkel champion bi doon ñëw jaxase làmb ji gisatuma ko loolu yëpp dañ koy waxtaanee fii léegi. xale bi ci yoon wi mu nekk combat bi li ko wala loolu yëpp dañ koy waxtaanee jokkeel champion bi maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga dalal sa rax. Modou Mbaye ñu lay fay di nuyu suñu adversaire ñaabu ndaw di naan ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli ci yenant bi di ñaanal suñuy ñaari waajur fi ñu gënal leen fi ñu jóge di ñaanal bépp waay dawdu di ñaanal ñi nekk ci kaso bi suñu boroom jëlal leen foofu noonu di ñaanal ñi nekk hôpital suñu borom fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu seen njaboot. di nuyu ñi ma àndal nii sama coach Pape Diouf di nuyu Diène di nuyu Yoro du nuyu Fall di nuyu tamit Kër musaar ga ma boowoo di nuyu sama waa écurie ressortissant de foto di nuyu mbër fa nekk yëpp di nuyu ëxlu làmb di ñaan Sénégal jaamu yàgg fi. amiin di nuyu sama papa Keba ak sama yaay Marème Fall di nuyu képp kuy bëgg a jógal di nuyu waa Yoof di nuyu waa Kër Moussa Guèye. Mhm. am na solo mbër ñaabu ndaw. maa ngi leen nuyu. moo maa lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli seen yonent seen sant sama ñaari waajur ñaanal suñu li nekk sa loxo nii mën nga teg sa ginnaaw rek nga nekk à l'aise di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mm-hmm. di ñaanal sama mag bu doon toog sama cumbukaay seex yàlla yërëm ko tam xaare ko àjjana ndeysaan amiin di nuyu sama papa suma kilifa suma lépp maam coono borom daaru ndeysaan waa di nuyu waa Sikóor yi yëpp képp kuy bàyyi daaru maa lay nuyu di nuyu kàkk yëpp di leen bëggee bu baax di nuyu waa Géejawaay sama dëkk mm. waaw képp kuy bëggee ñaaw ndaw maa lay nuyu di nuyu waa kaso bi xam nga waa Samed waa Campana ñoom tuuti Balla Bukar Ablaye Naar Cheikh Colobane dama xam nga ñoom Kéré Ndiaye xam nga di nuyu booy si jéer bi yëpp maa leen maa leen nuyu di leen ñaan di nuyu waa bu baax waa Gunaas waa waa Bassin ba. waaw di leen nuyu bu baax di nuyu àdduna di nuyu sama adversaire sama grand. ko mhm. ñaanal jàmm bu baax. Jokal ma ne xale bi mi ngi ci yoon bi may ñëw ci yow ma ne Jokal jël na xale bi. mais dafa nekk ci ay jafe-jafe Jokal dafa am lancé boo déparé ñëpp làmb ji ñëpp focus ci Jokal naan Jokal Jokal mu jékki-jékki Jokal def chute lu ko waral loolu. waaw Modou Mbaye loolu dañ koy sant yàlla ndax ñun suñu début làmb fekk fekk fekk na fi gars yi 2012 lañ dugg ci làmb. waaw ñu teg la 10 combats 10 victoires. Mm-hmm. am ñaari defet teg la waat ay ndam. Mm-hmm. tolof tolof ñëw. sport nag moo demee noonu. Mm-hmm. y a des hauts et tey coono yi may daj sama làmb yi ma ñàkk nii bi may daan daju ma ko. barke Serigne Saliou coono yu métti laay daj te man bi may daan deux fois par jour sax daan ma ko entraîné par par benn benn séance laa doon def par jour. te maa ngi nii di entraîné voyager di def lu ne di daj sama làmb lu métti maa ngi daan di dégg lu nekk tamit. Hmm. ñu naan mag laa te 2012 laa dugg ci làmb. Hmm. ñoo mag fuuf ñoo nekk ci làmb. yaa ngi soog a am 10 ans ci làmb ji. mu ngi noonu. dañ koy sante yàlla. jël booy ba nga xamante ne tey jii communication am sax moo gën a mën a tax ma jël ko ak parcours am. ndax amoon naa possibilité bëreeg ay adversaires yu ko gën a kodeeg yooyu noonu. Mm. mais comme que làmb ji nii tant que jàmbaar. Mm. doo nekk jàmbaar wala. tey jii jël fi pour luqali ko wala yooyu noonu man taxumaa jóg ci làmb. man mm. Modou Mbaye samay combat ab seeraan nga ko. bëriwuma mm-hmm. combat bu yomb. déedéet amul benn combat mu nekk ñi ma daan wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma daan. bëriwuma combat bu yomb muy bi danga ko jël pour wane Jokal bi ñu xamoon wala danga ko jël pour lan. waaw xam nga tolof tolof bu la dalee. boo ma dimbalee ma jël grand bul filmer ngir yàlla bul filmer suñu waxtaan bi jàppale ma rek dañ lay pour yóbbu police de alaaj Njaay da lay ñëw tolof tolof mm-hmm. da ngay delluwaat say mbokk nga xoolaat sa bopp. Mm-hmm. fépp foo am yaakaar nga delluwaat ko. Mm-hmm. tey bi may jël ñaabu ndaw bii nii. daf ma fekk mooy defaru dafa hmm. fekk ma jóge ci defet ba nga xamante ne ba tey mun ma koo di waaw moom nag xaw na xaw na maa umbale ñaabu ndaw waaw ñëpp dañoo jàpp ne jokkeel dafa yomb dafa yomb xam naa bu ma seetaanoon contact du ma jël hmm. ma seetaanoon contact wala mu laajte ñi ñi ma dëkkal mbër yi may contactal maa ngi ci nuyu kenn di ko ñaanal ndam ci combat bi muy Boy Seye 2 maa ngi koy ñaanal yàlla ndam lu rëy ci kaw Cheikh Super Jamono ak saa booxal hmm. ak Kalmu Ndour ak Doudou Sané ñu ay champion lañ te dañuy ñu ñooy ànd di entraîner chaque jour. Hmm. tolof tolofu làmb nag tolof tolofu làmb la tey fi ma jaar ni am na ay mbëri fa jaaroon après seen làmb gis nañ ñu. leer na mais incha allahu rabi sama combat ak ñaamu ndaw bi incha allahu rabi gëm naa ne lépp fa lay yem. lépp fa lay gisaat beneen jooteel. ñaamu ndaw nga nekk ci yoon ñu seetlu macha allah combat booy bëree dañuy gis sa wàccaay. ñu gis ni kombaa yu bari boo ci da boo ci génnee ndam c'est parce que da nga fonk combat bi nga bëre combat bu mujj bii nga mujjee bëri sa diggante ak Armé bu Ngéwél mu jeex sur le ku bi ñu la laajee rek da nga ni jokkeel laa bëgg a bëreel koi dama laa déglu yow nga loo wax Bantamba. Hmm. nga ne ma xale nga yaa ngi si yoon bëri ma say say moroom bañ jeex nga jël say mag yow yaa ko waxoon 2STV. Hmm. loolu mooy sama téléphone dama koy séance chaque xam nga tey yow làmb nga. yow boo waxee rek te tey bëri naa samay morom kon nit mu mënuma nekk di bëri combat jànq chaque jour. Mm-hmm. il faut samay mag may ñu chance. léegi beneen xale bu ñu may chance su dee si kaw jokkee lu tax ma jël ko dama bëgg wane sama bopp ci làmb rek xam nga di ko ñaanal jàmm parce que jàmbaar la am na ay grand frère sama avance ay mbër champion ay millions ñu bañ moo damaa ne si yoon xale la. Mm-hmm. géewaay ma yaakaar ay masters mm-hmm. damaa war a bokk si ëllëg géewaay si espoir géewaay. fu ma tourné fu ma tourné wax ji même chose la même wax na kon tey du yoon muy jël làmb di ko sàggane wala ma koy caaxaane wala may am ci xel ñaar dama si ñàkk wala dara. Mm-hmm. parce que lu topp sama ginnaaw xalaatuma sax maanaam toog benn fan du ma entraîné. du nuyuwaat Talla Gueye 2 Ibou Ndiaye Diofior waaw ñoo ñoom mu xam ñooy def si man lu bëri di nuyuwaat waa Diofior bu baax di nuyu la Gueye 2 bu baax di leen wax ne ni waaj bu baax am naa combat bu baax. Mm-hmm. kii waaw moom daa waroon xool ko waaw. Mm-hmm. Papa Sow moo jël combat ba pare nee na moom man xaw ma ko moom moo xamul man xale laa dama ne si yoon tey moom ñu muy contact ak ñëpp ak ki muy entraînement lii man lu jëntu ma ko l'essentiel la fekk mooy li ma war a def mooy damay ñëw bëre moom du ma ko daan hmm? ci kii nga xamante ni bu ñuy xool moom bu ñuy xool deux mille vingt deux bi la am dix ans ci làmb kon yow yaa ngi soog a bëre koo xamante ne ni man su ma doon wax combat bu expérimenté soog a koo am expérience ci làmb. waaw bi mooy seen premier combat arène man loolu laa jàpp. Hmm. waaw parce que lu ma liggéey si ay si ay ati ati at teel laa war a confirmation combat bi mooy combat confirmation waxoon naa ko sama diggante ma armée bu waxaat naa la ko waat fii tey jàppal téere dëgg la mbër la champion wala grand bu ma respecté la tam xam ma mais bi moom am na làmb. am na làmb moom moo gën a xam sa. Hmm. ñaaw ndaw. jogal booy bi moo demandé pour laaj la mais ñeme na la de. Modou Mbaye ñun duñu ay màgg bëri. déedéet. dañoo tarbiwu làmb bés jaaxaluñ moom bi mooy premier combat am ñun bés jaaxaluñu te Modou Mbaye incha allahu rabi le 12 mars. incha allahu rabi bu simee ko ba dongali ku nekk seen mbokk dinañ xam ndax bés bi jaral na leen wala bés bi jaral na leen incha allahu rabi ñaar dama koy jox lim mu xale la champion la wane na boppam tout court place su rafet laa koy teg du ma ko dépassé du ko wax lu ma ko war wax. Hmm. mais incha allahu rabi na waaj na xam ne am na combat na xam ne ñi doon bëreel di leen daan ay mbër lañ nag mais. ñaa làmb daf maa bëgg de. waaye comme combat bu ma jógee combat bu ma jógee su ma ci amee tol tol combat bu may amaat ñëpp dañuy jàpp seen génn. waaw loolu daf maa yéem. bi ma la jëlee bi ma la jëlee wallaahi azim sama téléphone bu tuuti mu toj. kar kar kar kar kar. moo tax gars yi di la woo. nga moo tax. jël la dëgg la da nga am combat bu mag mais combat bu rëy. waaw dama ne yow comme que yow muy mag yaa bëgg làmb ji waxuma laa man xale bu ndaw nekk ci yoon dëkk yaakaar na yàlla baax na. waaw man dëkk dafa ma yàgg ma am fu mu war a dem. foo ma nekk nii si sama place. incha allah da nga bokk si lim bi rek. bala dugg incha allah moo. Hmm. balaa ñuy woote dama dama bëgg dama bëgg parce que ci li présentation la rek mbokk yi ñoom ñaar dañuy présenté wu nii waxtaan au calme ñu xam ne combat bi taxaw na Dieye production moo ko taxawal le mars lay am ci arène nationale entraînement yi ma la gisoon nga def ko sa dernier combat yi. métti naa bi nga paree bon bi nga paree combat yi récupéré nga. waaw récupéré naa bu baax. toog naa trois semaine entraîné wu ma. nga xam te nga tëdd nelaw dama tëdd nelaw xam nga démarché waat gars yooyu yëpp dox nànk nànk bi mooy raw. Hmm? combat bi mooy raw. bi mooy raw. combat bi ngeen gis loolu mos a gis àdduna. ci entraînement. moo déggu ma nee naa la man dafa am fu mu war a dem. entraînement li ma defoon benn dix laa koy def moom. dix la koy def. dama koy koy multiplier. Jokal. Mhm. combat bi dañu doon présenté yaakaar naa ni moo combat bu doon mois de mars ñu ngi ci novembre décembre janvier février mars ñu am quatre mois. Mhm. quatre mois de préparation baax na wala bari na. daa bari sax. Mhm. combat bi mënoon na nekk fin décembre. yàlla baax na. yow Bafal. man bëri naa combat dimanche dimanche di ñëw. mais yow pareegoo waaw yàlla baax na. ma la pareegoo rek pareegoo. yàlla baax yow sa yii làmb ko aj nii sax bu nekk ay ay yow loolu moo la arrangé man man si combat laa jógee man si compétiteur laa jógee mënoo ma gën a pare man. man le 14 bu nax sa bopp le 14 août laa mujjee bëri. waaw wuyu ma dëgg ma wax la yaw bu nax sa bopp bu toog fi nga toog nooy népp ngay wax lu la neex dégg nga ma man mun mënu la gëj a mujjee bëri entraîné de ci lu nekk nga ne yow man bu nekkoon suba suba suba ma jàppale daan daal Jokal loolu da koy teg sa ginnaaw ba pare émission. loolu. de hmm. woo gars yi daa commencé la woo. waaw ba mënuñu la woo dafa am lu doy waar hmm. dafa am ay kilifa yoo xamante ni dañoo toog ku si mel ni xam nga ñoom Baara Gueye Kiwul xam nga ne xam nga tey am nañ ci yow yaakaar ñooñu ay kilifa lañ. ay nemmee ñooñu ku doon champion Guédiawaye ñoo nekk sa ginnaaw. dégg nga ma Baara Gueye Kiwul hmm. xam nga du nuyu itam GCM itam moom itam xam nga suñu kilifa la. di nuyu ma Kumba Saadi tam dégg nga ma ñooñu dañoo jël maanaam jugandoo baaree nga kii ewel pam maam maanaam pour jàppale ma ci làmb ñoom ñoo ne ma jël combat bi nee na ma bul bëri benn combat jànq nekkul ne man maa bañ combat jànq yi mais ñooñu ne ma ay combat jànq na la ma ñu may sànq dem ci kaw bëri te poids lourd yi yaa ngi dégg. mu hmm. ñëw pour mu ñëw pour bëri pour daan grand bii nii nii. Hmm. Jokal. oto buy tàkk moo neex a de. waaw ah, dëgg la de luy naaw a neex a sànni. wallaahi moom daa fay. <laughs> yàlla bëri na sutura combat nag dañ ciy woote quoi. Ah. mooy loolu noonu dañuy woo Kéba Kanté bu baax a baax. le grand suñu lépp. ndeysaan suñu maam Cheikh Kanté. et eh booy ñëwal jàpp ci affaire yi. di woo Yankuba Diatara. di woo Souleymane Ndiaye DG Sakop. Mm. Sapko di woo sëñ Modou Sall. Mm. di woo Samba Kanté ñoom rek. Hmm. diwoo lamin Lamine Gola ak hmm. Balla Gaye ñoo ñooñu dañuy jàpp samay combat mais duñ jàpp ci bii. ndax seen boy ngay woo Djili Wade. amul ay def sa affaire yooyu duñ jàpp ci bii. mooy mu tuuti rek. ah man dañ may teg ci côté. yow bànni nga rek yow. yaa yow hmm. waa Kër Massar nag bu baax a. waaw sa secteur. waaw sama secteur. kaas ba di woo sama ASC pas-pas. ndeysaan. di woo sama ASC Takandeer. di woo waa jàppoo équipe bu dëkk bi. di woo Kër Massar gépp Kër Massar village bi di ñaanal booy say de ndam. di ñaanal saa boo xale yàlla mooy combat. di woo waa yoof gépp nag. yoof maa ngi leen di ci combat bi. bu baax a baax a baax di woo waa Fatick. di waa Louga. di waa Touba di woo Baye Karim Mbacke. borom Makarim al di woo sëñ Saliou Fall ci combat bi di woo Baye yëpp. sëñ Saliou Modou Moussa Fall. maa ngi leen di woo. ndeysaan. Paaleen gépp maa ngi leen di ci combat bi di woo sëñ Cheikh Mbacke di woo sëñ Cheikhouna di woo sama sëriñ sëñ Mouhamadou Mbacke bu baax a baax a baax. di woo sama benn grand Tidiane Air Afrique. et eh, yow laa mujj jotagu. maa ngi koy woo non ñoom ñëpp foog ma woo leen. waaw waaw waaw ci combat bi mu jëm nii. di wowaat tamit samay entraîneur bu baax a baax ak sama mbokku mbëri Kër Moussa gépp di leen di leen woo sama combat bi. di woo samay mbokk samay rakk yu ma bokkal ndey ak baay samay copain ñoom Ba Ndiaga ak ñoom Habib ñoom Pama Dar Baye Fall yëpp maa leen di woo parce que tey jii nga bëre di ñàkk nit kon ne di la toog loolu goro ko mun. làmb ji léegi boo daan gis nga ni muy demee. Mhm. mais ñooñu bi ñu jaabee ba tey baawuñ di remercier waat tamit sama adversaire naan ko jàmbaar na nga waajal le douze incha allah rabi. woote. waaw damay woo Pape Mama suma grand maa ngi koy woo bu baax a baax a baax maa ngi woo tam suma père Balla Gaye <coughs> maa ngi woo Balla Gaye Kune bu baax suma père mhm. maa ngi woo tam Omaro mu léegi léegi. Omaro Gueye waaw moom suma waay la Omaro. wóoroon sëñ Saliou maa koy woo si combat bi mu jàpp si bu baax. moom nit ku ñàkk la. dëgg la di woo Ahmed Touré. waaw di ko wax ne ko damay waaj a voyage xam mu jàpp si blouson yeeg yëpp. Assane Mbodj maa koy nuyu bu baax suma doomu ndey suma xarit maa koy nuyu bu baax a baax a baax maa ngi nuyu tam Ablaye xam nga suma grand kilifa maa ngi bu baax a baax a baax a baax a baax Assane Ndaw koy nuyu bu baax di ko woo si combat bi Jili Ndeymar borom États-Unis maa ngi koy woo bu baax a baax a baax Omar. ama doom day jiil day maata maa ngi koy woo bu baax Sidi xam nga maa woo Boss borom États-Unis bu baax maa ngi woo Kanji bu Boy Niang waaw mu jàpp si combat bi bu baax a baax a baax di ko wax bu baax Assane Fall Colbert Textile suma grand suma lépp. xam sama xarit la. waaw sa xarit la maa ngi woo waaw maa koy woo bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. borom Mali maa bu baax. di nuyu Nene Bas xam nga king américain xam nga maa ngi nuyu mu Modou délégué Amar. Hmm. waaw Modou délégué Amar. Hmm. kooku suma waaye day sonn samay làmb xam nga. dèjà guddee du bu jëgal xam nga maa ngi nuyu bu baax rakkam tam Omar Amar bu ma wàkkal si Amar yëpp maa ngi bu baax a baax a baax. Hmm. du nuyuwaat waa Gunaas waa Guédiawaye kilifa. di nuyu bu baax a baax a baax du nuyu waa koñ ba yëpp xam nga di leen woo si combat bu baax képp koo xamante ni day jàppale Niang bu Ndaw wala ngay sonn si Niang bu Ndaw. maa ngi lay woo su ma limee damay juum maam jaaro loo sama yaay xam na waaw sama booy nekk yi ñëpp mafia bi waa diaspora bi yëpp maa ngi leen di woo. macha allah waaw ñu war waa Sikori bu baax a baax di wax maam Thierno borom daaru mu ñaanoon bu baax di nuyu sama sama dëkk Pape maa ngi nuyu baax waa Colli waa daaru Moussi. macha allah man fa laa dëkk du nuyu waa Touba nuyu waa Diofior waa Sicap waa Djilas waa Nangaan lu seeseen képp ku may jàppale rek am na benn nit boo xamante moom moom du ma ko woo moom bu. bëggul ma koy tudd quoi mais lépp moom la. combat bi fu ma maanaam fu ma jógee sama débuté sama làmb lépp moom la moo ko téye ci loxoom maa baax a baax a baax a baax donc combat bi bi mooy sama premier combat ren xam nga waaw mooy loolu ñu moom gars yi miin naa. maa woo waa Bentali bu baax a baax ak waa Asalem jaagatu tisi sama boy ñoom Amadou ñoom Buur xam nga ñoom Joomaa yi ferrailleurs yi ñëpp maa leen di woo bu baax a baax di woo tamit sama boy yi nga xamante ne xam nga. ñu ngi tukaar ak gars yi noonu di woo bu baax a baax ci bi ñu ñëw ma defaral bureau bi fat fat incha allah. Eh, ok ok